مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة fa mu jógee rek moo ne mooy inna akramakum inda Allahi atqakum foofu la foofu ki la gën a ki la gën a tedd mooy ki la gën a ragal yàlla waaye cëriñ foofu rek la bàyyi ko ñëpp noo bokk di jàmm noo bokk ndigal li li ñu digal noo bokk li ñu tere da ngeen bu waaye ñun ñëpp noo bokk di jàmm cëriñ cëriñ cëriñ cëriñ amut ci balaay ci wax eh, eh, ci ci wax suñu jooju rek ci alquran ci la bàyyi ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal euh, euh, doy yéeme kon ku yéene sax ñoo ko jombul ña kon euh, ad diinu nasiha yonent bi da wax diine ak diinu nasiha diine laabir rek la kon mooy li ma li ma wax li ma yéene sama bopp moom rek laa leen yéene li ma bëggal sama bopp moom laa leen bëggal ndax nooy no bokk no bokk Adama ak Awa bokk di jaam bokk ndigal bokk tere kon eh, te it yonent bi moo wax ne diinu nasiha diine ba diine jeex na laabir rek la ngeen ngeen xam ne man mii tey yàlla lu am force daje nun ñi nun mooy ñu am occasion euh, ci daje bi loolu man am naa ci cant guri cant gi weesuwut am naa yëlla ju ma mën a wax ak yéen man leen a labiré labiré gi nag daanaka weesuwul kàddu yooyu weesuwul kàddu yooyu jariñ amut inna akramakum inda atqaakum moo moo mooy moo foofu la jógee ki ki la ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla dañuy da ngay dem sa sëriñ dañuy sa sëriñ si maanaam ñi dañoo dem ba rafet seen jortu rafet ci moom sa digg moom boromam loolu mooy moom foofu la tàmbalee ki nga xam ne da ngeen bokk di dund ngeen di bokk di jëf ngeen di ko gis muy mu jëm ci boroomam yitte lam ci war a yitte yitteem jëpp mu def ko ci lépp lu muy def yàlla tax mu di ko def na ci boroomam kooku loolu rek ko may njiit ndax njiit gi sax wutu wutu tëllu ko njiit googu mu am sax tëllu ko waaye nag ña ka gis loolu ci moom ba ñee ko ci ba yaakaar ne man la de mën nañ ko wut ci moom loolu rek moo indi cëriñ loolu rek moo indi cëriñ am lawul noonu loolu loolu rek la kon ngir noonu ngi doy jaaraka doy na ngir xamee ko noonu xam bu leen jombalee dara seen bopp ci lu baax dara jombu leen wala xadd karal na ba ni adama la yàlla wax doomu adama la yàlla teral teral na ko ba noppi moo xam nag lu mu gën a sàmb teranga jooju rek di gën di yokk ji gën a jege jëm ci borom gën a jege borom ba àjjana waaye lu mu gën a sàggane teraanga jooju di gën a dellu gannaaw di gën a dellu gannaaw ba mel ne bàyyi foofu rek doy na <laughs> doy naa yëpp euh, journaliste rek man xaw ci sax waaye da am tuuma dangeen am tuuma tuuma ji rek xam naa ne euh, du du du du du du loo xam ne lu nekk lu mën lu mën lu mën lu mën a wér la. Hmm. ndax nit ñi nit ñi nit ñi dañoo bokkut xel yi bokkut jikko yi bokkut yaakaar naa ne eh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara boromam yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. Hmm. kazaalika sabaan bi it noonu rek la demee. kon na ngeen ngeen góor bu baax <laughs> xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen di ngeen góorgóorlu ba luy dëgg rek na ëpp seen seen seen i wax ak seen i bind ak seen i yëngatu la dul dëgg na ngeen góor lu baax di ko wattandiku seen kéem kattan. foofu rek laa ci noonu dong la demee bu leen jombale dara gisul sëriñ rek ñu ne nga defe ne da da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet ba jëmukaay wutukaay benn yàlla rek la yàlla rek fi nekk. waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki gën a yàlla. wax jeex na. jërëjëf sëriñ ak taalibe foofu rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. na ngeen fi yàgg lool bokk góorgóorlu bu baax. maa ngi yéen yem képp. ay jaam rek lanu fa borom yàlla boo ko nu digal boo nu tere. noonu rek la demee. jërëjëf ma ah. jërëjëf la la la la la yàlla yàlla yàlla suñu borom mayoon mën a fëx rek wutit yàlla. doonu yàqal dara. doonu yàqal dara ci suñu cëru adduna bi. ndax suñu borom noppi na kenn ku ne lay sa cër yàlla noppi na ci. foo nekk mu fekk la fa moom. ana kon li ci am solo daal mooy nan nañu xam ne am nañ borom nañ ko gëm nañ ko gëmee ba noppi ñu xam ne moom moom moo digle lii xam jàng jàng rek la wala nga laaj moo digle lii moo tere lii ñu góorgóorlu ci la mu digle luñ ci sama suñu kem kàttan ñu góorgóorlu ci la mu tere da daw suñu xel suñu xelu bakkan suñu kem kàttan ni téere yi adama <laughs> téere yi gàkku gi lépp lii rek fi nekk. jërëjëf Mbacke jërëjëf. téere yi li ñuy bare bare bare bare ak alxuraan ak la ko jiitu woon. Hmm. lii dong la. jërëjëf Mbacke مفاتيح البشر والأمن والجنة fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna